waaw waaw mi ngi noonu commencé jàng la soirée mi ngi ci biir teew bi nekk numéro 2 leader international. Attention Sorul Masor. Dóor mu daanu xet na ca. waaw waaw. nàcc na nees nàcc na jël na ko jël na ko bu dal léegi nàcc na nees nàcc na foog mu dem ci médecin bi. Cheikh Ndour woon na orga. coach Cheikh Ndour woon na orga. Cheikh Ndour woon na orga mi ngi wax ak moom mi ngi koy coaché mi ngi koy coaché coaching gagnant la koy jox bu delloo lan la war a bëreewaat lan la war a kun ne combat pendant dem na ci médecin yi nekk na rajo dem na ci médecin yi day faj ñëwaat tali moo naan day soow naa soow daan dem na naa soow dem na naa ni soow ndeysaan waaye soow moomu neexul de billahi wallahi soow mi neexul oh. demul naa ni soow daa dem faj ci dem na ci bu neexam nekk numéro 2 waaw waaw mi ngi noonu ñëwaat na ginnaaw mi ngi lëwtoo nekk mi ngi dox ci kawam nekk mi ngi dox ci kawam comme ni ma leen ko waxee tey ne samedi 26 août 2023 ñu ngi leen national le promoteur Modène Production moo organisé nekk numéro 2 mu ñu woon ginnaaw loolu Mame Thiam moo jàkkaarloo ñun waaw waaw nekk mi ngi dox ci kawam ne mi ngi koy manoeuvré mu jàpp na Orca mi ngi door Orca mi ngi door dafa bëgg mu siggi Orca mi ngi door dafa bëgg mu siggi attention ne numéro ko plaqué na ko waaw waaw ndeysaan Cheikh Ndour mi ngi wax Orca du jël avertissement jàmbaar du jël avertissement jël na avertissement wa Orca jël na avertissement benn avertissement wa waaw waaw 1 à 0 Ness numéro 2 face à Orca ñu ngi lew too Orca Ness numéro 2 ñu ngi lew too ñu ngi lew too Ness numéro 2 face à Orca Fatawrka arrêté le combat bi arrêté le combat bi arrêté le combat bi avertissement Orca Orca jël na deux avertissement mais jël na benn avertissement Mansour mi ngi kaas coach Mansour nee na jaaduwul nee na nee na ñaar nee na fulewam warul jël avertissement mais monsieur l'arbitre reste le maître du terrain monsieur l'arbitre reste le maître du terrain Cheikh Ndour mi ngi wax ak Orca waaw waaw dugalal na Boulaye bi mu dóorul day dóoraat. waaw waaw. waaw waaw nekk bi mel ne Dior Diawa attention nekk na leen guddi waaye demul nekk mu dóoraale plaisir bi mu dóoraale plaisir bi ay jëlaat na foofu dal léegi Ordia bi dafa soxal di attention dóoraat na fa Ordia fu mu dóoroon foofu lay dóoraat comme dóoroon fa lay dóoraat moom Ordia. léegi ñu mi temps de léegi jeex premier mi temps bi mu jeex premier mi temps bi mu jeex attention Orca attention Orca Militão! Danilo Militão! Sëriñ Nees mooy am mooy am ndam loolu la moo demee. war na koo xam. bi xam na ne bu jëlaatee benn ñàkk na combat bi il est temps il est temps il est temps parce que Orca ba muy ba muy euh, bi bi arbitre génne seen diggante dafa déclenché tee bagaar moom la ubbi léegi nag dem na ba déstabilisé les blessé blessé les seen cimetière bi ñëwaat jàpp naa ne dafa waroon continuer neex bi nee nañu jeexaat te jeexaat boo paree doon wax loolu wóor ndax bu ma sonal bu ma sonal Dakar bu ma sonal Dakar bu ma sonal waaw waaw waaw waaw da ngay sar borom Jamarloo TV ndeysaan waaw waaw mi ngi noonu mi ngi noonu yàlla na jàmm yàgg jàmm rek am solo ah combat bi jeex na combat bi jeex na Orca jël na cinq avertissement combat bi jeex na Orca jël na cinq avertissement Ness numéro 2 am na ndam ci kawam Ness am na ndam victoire de Ness numéro 2 mi ngi noonu combat bi jeex na victoire de Ness numéro 2 victoire de Ness numéro 2 combat bi jeex na waaw waaw jeex na jeex na jeex na Ness am na